صلى عليك الله يا خير الورى تعد بحبات الرماد وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هبا فوق السهول وبالسهول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk جلدي نيجي دي ngi dimandi ko وتعالى bi دي wa taala fas yéene dikkaat muy téere bu am am solo boo xam ne dafay jàngale wéetal borom bi tabaraka wa taala ñu toll ci suñ bindu fukk ak juróom benn fi borom téere bi di jàngale lii di xett li ko ci kudul yàlla mu ne baabun min ashirki an yastaxiisa bi xeyrillaahi aw yad'u xeyrahu bunt bi dafay jàngale di xamle ne bokk na ci bokkaale yàlla xettiliku ci kudul yàlla wala woo di ñaan kudul yàlla mu daldi ubbee ci aay bi ci suuratu yunus borom bi tabaraka wa taala wax ne wala tadcu min duni illahi maa laa yanfacuka wala yaduruk fa in facalta fa innaka idan min alzalimin wala tadu bul ñaan bul woo min duunillaahi ci kudul yàlla wala ludul yàlla ak lum mën a doon maa loo xam ne laa yanfauka mënulaa xëccal njariñ wala yadruka waaye tamit mënulaa lor waaye mënulaa fegal lor tamit fa in faalta ndem def nga loolu day fa innaka idan min alzalimin kon yaa ngi bokk ci tooñkat yi te tooñ boobu ñu jublu ci bokkaale ndax al zulmu ashirku a'zamu zulmi bokkaale yàlla mooy tooñ gi gën a màgg comme ni ko borom bi jàngalee ci suuratu luqmaan inna shirka la zulmun azim mbokk jullit yi lan mooy xettaliku xettaliku mooy nit ki am lu mu ragal lu mu tiit maanaam am tar boo xam ne dal na ci kawam muy woo ko ko ci xettali am tartar metit boo xam ne dal na ci kawam muy woo ku ko ci génnee ci xat-xat boobu mu toll loolu mooy xettaliku loolu kenn du ko def ci kudul yàlla dañuy dégg kon ci aay jiine ne woo wala ñaan kudul yàlla loola bokkaale bu mag la tey ki gën a baax ci nit ñi donte ne moom lañuy woo wala moom lañuy ñaan ku ko def loolu da ko daal dugal ca tooñkat yi dugal ko ca bokkaalekat yi kon rawatina keneen ku dul moom kii woo ab yonent wala muy woo aw malaaka di xetli ko ci moom loolee muy def bokkaale la waaye kon jële la nag ki koy def ci keneen koo xam ne du malaaka waaye du yonent waaye ci nit ñu baax ñu la bokk wala sax ci nit ñu njortal mbaax ñu la bokk ba tey bokk na li ñuy dégg ci aay bi ne mboolem yi nga xam ne dañ leen di boole yàlla di ci bokkaale jaamu leen ak nen la te it lott nañu ci xett li kenn lott nañu ci xett li mbindeef ba ci suuratu yunus borom bi tabaraka wa taala nee na wa in yamsaska bi durrin fala kaashifa lahu li fadli yusibu bihi man yashaau min ibaadihi wa huwa algafuuru wa in yamsaska allahu bi durrin yàlla sunu borom tabaraka wa taala bu la nammee teg loo xam ne lor la fala kaashifa lahu amul kenn koo xam ne mën naa teggi lor jooju mën na koo wuññi illaa huwa dara moom sunu borom tabaraka wa taala rek naka noonu it wa in yuridika bi xayrin bu la nammee defal aw yiw fala raadda li fadlihi amul kenn koo xam ne mën naa delloo ngëneel loolu li nga xam ne suñu borom moom moo la ko jox yusibu bihi man yashaau min ibaadi da koy jox ko ko soob ci ay jaamam waxoo moom yàlla ghafur mooy ki mën a jéggale bakkaar arrahim borom yërmande ju yaatu bi kon ba tey ñuy dégg ci aaya jii ne dañoo war a wéetal borom bi tabaraka wa taala ci xeetu yaakaar ak xatliku ak ñaan ak mbolam xeetu jaamu yàlla yépp waaye jaamu keneen ku dul moom loola ak neen la waaye kooke ngay jaamu it lott na ci xëccal la njariñ wala ci jañal la lor ba tey ñu dégg ci aay ji saxalal borom bi tabaraka wa taala coobare suñ boroom dafa am coobare te ci coobareem ci lay def lépp lu muy def waaye ba tey saxalal borom bi tabaraka wa taala yaari melaw yi di melaw jëggal ak melo yërmande dafa ca kem na mu yell ci moom subhanahu wa بودي ميتي سورة العنكبوت برام بتبارك وتعالى من ذي وحنان فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون فابتغوا عند الله الرزق ورسك بغين كو سخلا ديرين كو ساكو فيا الله كودول يالا منت ماي ورسك كون يومي دم با خيف ولا nga ragal xif ngay xet li ko ci sun borom wërsegal la na nga ko sàkku ci sunu borom tabaraka waaye bul ko sàkku ci keneen ku dul moom yàlla ci boppam moom mooy wërsëg jaam yi wa in min shay'in illa indana xazainuhu lu mu mën a doon rek ay mangasinam la sunu borom tabaraka wa taala yor yoru ko kon lépp mu ngi ci loxol borom bi fabtagu inda allahi rizqa waabuduuhu ngeen jaamu ko moom dong kon da nga ciy ci boppam jaamu yàlla la yàlla kon moom mooy wërsëgale nañuy sàkku ci moom wërsëg waaye nañu koy jaamu moom dong washkuru lahu waaye tamit nag ngeen di ko sant ci wërsëg bi mu leen wërsëgale ilayhi ci moom turjaoon ngeen di dellu borom bi tabaraka wa taala nee na ci hadisul quds man sama diggante ak doomu aadama nee na mbir mu rëy a fi nee na man day dama leen di bind ñuy jaamu keneen ku dul man ma leen di wërsëgal ñuy sant keneen ku dul man Hmm, mbokk yi loolu rëy na lool loolu rëy na lool kilo bind moom rek nga war a jaamu waaye ki lay wërsëgale moom rek nga war a sant kon fabtagu inda allahi rizqa waabuduhu washkuru lahu ilayhi turjaun mbokk jullit yi bokk na ci li nga xam ne mën na ko dégg ci aay bii war goo xam ne war na ko ñu jaamu yàlla moom dong tey di sàkku wërsëg ci moom dong keneen ku dul moom mënta wërsëgale ba tey bokk na ci li nga xam ne dañ koy dégg ci aaya ji wujubu ifraadillaahi bi jamihi anwaahil ibaada war goo xam ne war na ko it ñu wéetale yàlla ci mboolem xeeti jaamu yàlla yi maanaam mboolem li nga xam ne ak jaamu la rek ak lu mu mën a doon du tuuti ba tax ñu ne bokku ci wala mu rëy ba tax ñu ne bokku ci wala mu nëbbu wala muy jaamu yàlla xol wala muy goog làmmiñ wala muy cëri lu mu ci mën a doon yépp rek borom bi tabaraka wa taala képp lañ koy defal waaye bokk na ci lañuy dégg ci aaya bi war goo xam ne war na ko ñuy sant borom bi tabaraka wa taala ci xéwalam bi wa ma bikum min nicmatin fa min allah lépp loo xam ne nit ki am na ko ci xéwal rek na xam ne ci borom bi la jóge kon moom lañ ci war a sant ba duñ caa sant keneen loolu nag du dàqonte mukk ak doomu aadama bi jëfal la nga sant ko comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa waxe man laa yashkuri laa yaskurullah koo xam ne du sant nit ñi du sant yàlla kon kañ la war a sant nit ñi mooy bu nit ki defalee loo xam ne moom mën na ci dara waaye xam nga ne wërsëg nit ki mën lu koo yokkal aw fan gudd fan nit ki mën lu koo defal ajjana nit ki mën lu koo may sawara nit ki mën lu caa musal xettaliku ci àll nga ne ci digg àll gis fa loo ragal foofa yàlla képp moo la mën a xettali waaye léeg-léeg nga nekk ci sa kër masalan Eh, sab néeg di lakk nga woo nit ñi ñëw xet leen ci fay la la lakk gi après nga sant leen léeg-léeg nga am itte dem ci nit sàkku ci moom itte mu defal la ko nga sant ko gannaaw ba nga sant yàlla ba noppi yu mel noonu taxul dee si wax dama ne tàqale cant gi ñu war a sant nit ak cant gi ñu war a sant borom bi tabaraka taala lu yomba xam la waaye tamit lu yomba tàqale la koo gis nag muy jéem laxasu ci hadis bii bëgg a bokkaale yàlla la muy def moom moo ko xam na ne eh, fi ñu war a sant doomu aadama xàmmees na ko ak cant gi nga xam ne borom bi rek moom moo ko yelloo bu dee borom bi la moom xeeti cant yépp la yelloo même li la doomu aadama bi defal ba noppi du tee danga ci sant borom bi doo tee sant doomu aadama boobu ngay sant waaye nag am na ay mbir yoo xam ne moom yàlla képp képp lañ ci mën a sant doomu aadama daf caa mënut a joti mënu ca dara bokk na li ñuy dégg ci aaya bii saxal na negete bu ëllëgee dañuy faatu dellu ci borom bi tabaraka wa taala wa ilayhi turjaun bokk na ci li ñuy dégg ci aaya bi negete sàkku wërsëg ak fàggu teewut nit ki wàkki lu ci borom bi tabaraka wa taala nit ki day sàkku wërsëg di fàggu loolu ci jaamu yàlla la bokk daqantewla ki koy def dafa wàkki luwul ci borom bi tabaraka wa taala borom bi tabaraka wa taala dellu wax ne ana kan mo gëna sanku ki nga xamne da fay wo ku dul yàlla kami wo du ko masa wuyu du ko wuyu ba faw ba bis penc ànd nak na sax wo gam koy wo mom yegul sax ne mang koy wo xamu ci dara tayit bis penc buñ pangé nit ñi ba ñepp tew ci karam borom tabaraka taala keroog kooku seen non lay doon maanaam kooku ñu doon wo ta du yalla day nonu ñi ko doon wo waye sax day weddi jaamu gi ko don jaamu di waxal sun borom ne ko ñi kat man ma suñu ma jaamu lol borom ba ngi ko wax ci suratul aqaf wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin borom bi nee na wa man adallu ana kan moo gën sànku ana kan moo gën réer même man yad'u min dunillah koo xam ne dafay woo ku dul yàlla man laa yastajibu lahu ila yawmi alqiyaama koo xam ne du ko masa wuyu ba bis pénc maanaam la mu koy woo di ko ci ñaan wala mu ko cee xettaliku wala mu ko ca sàkku ndimbal kooka du ko masa defal ba keroog bis pénc wa hum an du'aa'ihim gaafiluun ànd ak ndax sax ne ñoom ñi leen di woo ñañuy woo day yëguñu ne ña leen di woo wa ida xusira annaasu bés bu ñu pangee nit ñi kaanu lahum aadaan dañuy nekk seeni noon wa kaanu bi ibadatihim kaafiriin dañuy weddi sax jaamu ko ga ñu leen daan jaamu kon woo ko dul yàlla jaamu ko la suñu borom nee na wa yawma alqiyaamati yakfuruuna bi shirkikum yawma alqiyaamati bis pénc bu taxawee dañuy weddi bokkaale googu ñu leen doon boole ak yàlla walaa yunabbi'uka mislu xabiir amul na kenn ku la mën a xabaar xabaar bu mel nii ku borom bi tabaraka wa taala nga xam ne moom moo dañ kumpa ci lépp kon bokk na ci liy dégg ci aaya jii ann duaa ibadatun ñaan jaamu yàlla la fa man daa gayra allaahi faqad ashraka ashirka al akbar képp koo xam ne ñaan na ku dul yàlla ma ngay def bokkaale gu mag a mag goo xam ne daf koy génne ci lislaam ba tey bokk na ci li ñuy ci aaya jii bayaanu shaqaawati man yad'u gayra allaahi fi dunya wal leeral texee di goo xam ne kii woo ko dul yàlla da koy texee di adduna ak alaaxira bokk na ci li ñuy dégg ci ay ji anna shirka huwa a'zamu dalaal bokkaale yàlla mooy gën jaa màggi cànkute réer yi bokk na ci li dégg ci ay ji isbaatul baasi wal xashri lil jaza saxal ne dañuy dekkal nit ñi pang leen yóbbu leen kanam borom bi ngir kenn ku nekk ñu fay la nga doon def bokk na ci li ñuy dégg ci ay bii أن الأوثان لا تسمع من دعاها ولا تستجيب له حكس ما يتصور المشركون فيها خيرم يي اك مبولم يي جامو تدو يالا دو ديك موك ني لين دي وو واي ويو مصطفى نونك نك ليغا خامني ني لين دي وو نيوم لول لا ني تصور لول لا نجاپ ني نيوم ني لين دي ويو ولا ني جاپ دي فجال اديو فك ديمي وود نون بوكو ني ديك بي ان عباده الله وحده fiiha xayru dunya wal axira jaamu yàlla moom dong te koo booleeg dara yiw àdduna ak yiwu alaaxira moo ci dajee borom bi tabaraka wa taala nee na su ko woo ana moo koy wuññil tartaram ak njàqareem waaye def ko muy kuut taay mu wuutu ci kaw suuf ana mooy def loolu tontu bi mooy yàlla kep mom mokoy def keneen du ko def mu daal di laaj ne kon nag ana kan lañuy ñuy jéem a booleeg yàlla ndax da ngeen dul xalaat te suuratu nam li borom bi ne am amman yujibul muttarra ida daahu wa yaksifu suua wa yajcalukum xulafaa al ard a ilahu maa allah qalilan ma tadakkaruun nee na amman yujibul muttarra ndax am na kenn koo xam ne mooy wuyu aji loru ji ida daahu bu ko woo wa yakshifu suua mu di ko wuññil njàqare wa yajcalukum xulafa al ardi mu di leen def ngeen di wóotu ci kaw suuf maanaam suñ borom moom bind aadama teg ko ci kaw suuf mu nekk ci kuutaatam mu ne a ilahu ma allah ndax am na jenn yàlla ju ñu war a jaamu ko booleeg yàlla déedéet tontu bi mooy déedéet qalilan ma tadakkaroon kon néew na lool lu ngeen di xalaat di ko delloo ci yàlla sunu borom tabaraka wa taala bokk na ci li ñuy déggee ci aaya ji liñ ci mën a jariñoo kon xet li ci ku dul yàlla ci loo xam ne yàlla képp moom moo ko man loolu bokkaale la waaye bokk na ci li ñuy dégg ci aaya ji ndekete bokkaalekat yu jiitu ya ñoom kat doon nañ saxal tawxiid rububiyya ndax ñoom tawxiid rububiyya moom mësuñ jaa bokkaale yàlla ci tawhidu uluhiyya kay ci leen ñi bokkaale yàlla bokk na ñuy dégg ci aaya ji al istidlaalu ala tawhidi ilahiyati bi tawhidi rububiyya dañuy tegtaloo ci ne ndekete gannaaw nag lii di ya moom borom bi képp a ko man kon nag moom tamit tawhidul uluhiyya borom bi képp lañ ko war a defal te mooy borom bi képp lañ war a jaamu ki nga xam ne moom rek moom moo bind moom rek moom moo moom moom rek moo mën a soppandiku ci mbir yi kooku rek lañ war a jaamu waruñ caa boole keneen وروى الإمام الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى الإمام الطبراني بن ويبرم maajibi nettali na ci isnaadam mu wax ne ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am naafiq boo xam ne daf doon lor jullit ñi am lenn ci jullit ñi wax ne jóg leen ñu dem xetliku ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam daal nañ dem ci yonent bi ngir mu xetli ñu ci naafiq bii bañ demee wax ko yonent bi fa qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam innahu laa yustaxaatu bi mu ne leen kenn du xeetli ko ci man wa innama yustaxaatu billahi subhanahu wa taala kuy xeetli ko da ngay xeetli ko ci yàlla mbokk jullit yi xam ngeen ne eh, saxaaba yi ñu sore woon bokkaale yàlla lañu waaye baat bii ñoom sax jubluwuñ ci bokkaale yàlla waaye li bëgg mooy dem ci yonent bi saa sallam ngir mu jàjjal leen naafeq bii di ibnu ubay ibnu salool mu jàjj ko ba mu bàyyi li muy def te it yonent bi sallallahu alayhi wa mën na loolu waaye baat bi ñu jëfandikoo baat boobu yi la bëgg daal leen ci daal leen koy tere bañ teel ko bàyyi ngir aar wàllu tawxiid ba nga xamante ne baat bi nga xam ne booy xool ci maanaam ci kaw day mel ne borom bi dañ ko war a jagleel loolu moo tax mu teel leen a xamal ne baat bi bu leen ko jëfandikoo kon nañ jëfëndiko yeneen baat waaye baatu al istighathatu nañ dem katliku koku sun borom tabaraka taala kep lañ koy jagleel kenn du ko def ci mbindeef mbindeef mom mun ta xettali kenn kon tej buntu bo xamne ne su ko bàyyi woon mu ah nit mën na ja potoxlu ba nekkoon na naa ko ci mbindeef lol motax yaronte bi sallallahu salaam wasallam dal teel a tëj bunt boobu bii donte ne xam sax lay wayu sahaba yi waye da len di jangal di len yar ak doxale teggiin digganteem ak boroomam ba nga xam ne baat bii di baatu al istixaasatu du ca dugg du ca bokk-bokklu wala mu koy xëccoog moom mu teel a xamal saxaaba yi ne leen kenn du xettaliku ci kuddul yàlla xettaliku ci yàlla képp lañ koy def kon bokk nag li ñuy jariñoo ci aaya ji ci xadis bi kon annahu laa yustaxaasu bin nabi sallallahu alayhi wa sallam wa xayruhu min baabi awla kenn du xettaliku ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keneen ku dul yonente bi nag rawatina ndax yonente bi moom moo gën ñëpp ci mbindeef yi moo féete kaw ñëpp ci mbindeef yi mooy sangu mbindeef yi yépp kooku nga xam ne kenn xeetli ci moom na kon keneen ku dul moom waxe noppi maanaam jëlale dañ ko daal ba tey bokkoon li ñuy jànge ci xadis bi al irshaadu ila hadani nafsi wa himayati tawxid maanaam jubale nit ñi ci baat yi gën a rafet waaye tamit aar wàllu tawxid waaye tamit tëj bunt boo xam ne dafay xëcc nit ki jëme ko ci bokkaale xam ngeen ni am na ay baat yoo xamante ne soo ko waxee mën naa am lay jubluwaay bi ci kaw nekkut sax ne bokkaale la wala muy lu lay jubluwaay bi ci ci biir laa bëgg a wax waaye lay jubluwaay bi ci kaw mënees na ko caa déggee nit ki mën naa wax baat yoo xam ne kaw gi nii lañ ci déggee mooy bokkaale yàlla lañ ci déggee mooy dafa xaraam te pourtant mën naa am ci biir jubluwu ci loola waaye nag gannaaw baat bi moom boo ko waxee ci kaw loolu lañ ciy déggee rek su boobaa nga moytandiku ko kon yépp baat yi nga xam ne dafa nekk baat yu ñu wala fu mu leer nañ wala sax ci arab wala baat bi ko mën a waxee nga xam ne boo ko waxee lañ ciy njëkk a déggee moom mooy ci kaw gi moom bokkaale lay tegtale donte ne nit ki mën na ko caa ñàkk jublu ci biir téewul baat yooyu yëpp dañ koy moytu ngir tëj maanaam lépp yëpp yoon woo xam ne mën naa xëcc nit ki jëme ko ci bokkaale yàlla bokk na a jànge ci aay bii nag ci hadis bi kon yoona bu yoona nit ki muy muñ ci yoonu yàlla maanaam lu ko dal ci yoonu yàlla mu di ko muñ waaye tamit des na ci dégg ci hadis bi ne naa feq lu bon a la des na ne jullit ñi kenn warul leen a lor ndax loolu daa bokk ci jëfi naafiq yi naafiq boobu nga xam ne dafa doon lor jullit ñi mbokk jullit yi kon li nga xam ne mooy al istigaasa te mooy xettaliku kenn du ko def ci ku yàlla kuy ñaan nay ñaan yàlla kuy woo na woo yàlla képp koo xam ne am na lu mu ragal wala am na tartara bu mu nekk wala xat-xat bu mu nekk na woo boroomam tabaraka wa taala wuuteeg nag li ñu gis mu tasaaroo lool ci sunub société ñu baree bari buñ tiitee dañuy woo ñu bokkatul yàlla buñ nekkee ci oto bu oto bi yëngutoo nga dégg ay tur yu baree yoo xam ne kenn du ci yàlla ñu di leen woo ngir di leen xeetali ko sax nga dégg ñuy woo ñu dul yàlla bu ñu ab kaas sax mu rëcc nga dégg ñu woo ko dul yàlla ak yu bare bare bare bari yoo xam ne képp koo xam ne yaa ngi dund ci suéde sénégal bi da nga xam ne liñ fiy xet di ko ci kudul yàlla bari na lool donte dañ koy def mën nañu wax ci kaw naat ne ah ñu ngi ko jublu ci nangam a nangam waaye jëmmi baat bi nga xam ne boo ko déggee xam ne kii mi ngi woo mi ngi xet di ko ci kudul yàlla rek loolu ci boppam dañ ko war moytu kon ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu musal ñu ci bokkaale aar ñu ba duñ xetliku wala ñuy woo kenn ku dul moom hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain